mbok soppe ci yalla ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam amaat nañ mbekté mu reuy ak contenté ci jakar lawat ak yeen ginnaw bañu défé légui léegi direct ci français jëme ko ci thème bobu ñuy wax les vertus de la euh, de la retenue ñu ñu koy wax ci arab fadailu dabtin nafsi hein ak les notions frontalières à la folie nga xamante tay débat bu doy war la débat bu diiné wala waaye tamit débat bu philosophique la waaw yaakaar naa yéen ñi ko suivre xam ngeen ni débat bu philosophique la waaw ñoo ngi ñaan yàlla mu jubal ko euh, ci tënk rapidement ci wolof ndax damay bëgg ubbi léegi pour mbokk yi ku bëgg a dugg dugg wax ci sa xalaat ñu bokk séddoo ay xalaat ndax dama waxtaane woon ci danger làmmiñ muy waxtaan bu am solo waaye tamit làmmiñ du moom dong moom la ñu war a tënk waaye tamit doomu aadama dafa war a tënk jëmmam te tënku jëmm li koy def moom mooy li wax ci wolof dal teey euh, bàyyi xel bañ a ëppal euh, doo doo meree nga wax benn denc juróom-ñeent ah bañ a bañ bañ wax lu ëpp bañ a def lu ëpp teey sooy sopp sopp ndànk sooy bañ bañ ndànk yooyu yëpp yonent bi jàngal nañ ko sallallahu alayhi wa sallam tey nag dañoo bëggoon rek barkeelu ci li ñuy wax retenu retenu nag mooy dal mooy teey mooy am looy bàyyi bañ a bañ a jël lépp waaw ah, kay mongoog euh, mongoog daal yooyu ñëpp xam nañ ko ñun ci wolof te dinañ waxtaanee tamit ñàkk dal li muy indi ak tamit liy waral ñàkk dal ñetti yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee suñu paree na ñu jël jàngale yonent bi xool nuñ koy euh, jariñoo ci wolof incha allahu taala bi ci njëkk dama ne euh, bàyyi xel ak am looy bàyyi li ci njëkk il faut ñu xam ne ñetti mbir la benn mbir mu njëkk mi mooy suñu digganteeg suñu borom suñu digganteeg suñuy morom ak suñu diggantee suñu bopp suñu digganteeg suñu borom suñu borom moo ci jiitu moo ci gën a am solo képp ku am looy bàyyi xel sa digganteeg sa borom yàlla mën na la dimbali sa digganteeg say morom baax sa digganteeg say morom yi sa bopp baax suñ digganteeg suñu borom nan lañ ciy bàyyi xel nan lañ ci amee retenu mooy lan nga bañ a bokkaale yàlla ngay jaamu yàlla moom dong te bañ ko bokkaale kenn bañ ko bokkaale leen bañ ko bokkaale fenn dégg nga Euh, di wétal yalla di top yalla di di di sedd yalla di bayyi xel yalla ci lepp loy def ci lepp loy wax ci lepp lu ci doon ci sa dundu nga ci bayyi xel yalla di top sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam koku moy bu ñëkk bi ñaareel bi moy sa ak say morom say morom nga bayyi leen xel xamni say morom bi jaam lañ waaye su ëllëgé yowal qiyamah ci jëflanté gi ngay ak ñom mën na la tardel yowal qiyamah ndax euh, euh, sen mam muhammad digeen bis musna ko laaj ne ko man de damay jang ci alquran toujours yàlla ne dafa gaaw atte inna allaha sariul xisaabi waaw te ma ne ko ma dégg ci yeneen aaya tamit alquran di di wax ne ñu ñuy jàngal ci alquran ne yowmal xiyaam day durer quatre mille ans cinquante mille ans juróom fukki junni at ah ñii ne mille mille ans ci yeneen aaya muy junni at te te te te durée boobu dafa yàgg benn fan rek ëpp na waxuma laat nag junni at wala juróom fukki junni at cinquante mille ans waaw sama maam ne ma loolu euh, loolu lu yomb dégg la mu ne ma nit ñi seen diggante ak seen borom mu ne ma ci tarafatal ay ni la ko yàlla di àtte waaw tarfatal ay ni la ko yàlla di àtte mu ne yowmal xiyaam la koy yéexal mooy sunuy àq sunuy diggante waaw la koy la koy yéexal mu ne mooy sunuy àq sunuy diggante waaw guddaay yowmal xiyaam sunuy àq sunuy diggante la waaye mu ne suñu diggante ak sunu borom kooku moom yomb na ku jaamu yàlla bokkaale woo ko topp yonent bi dem aljana loolu yomb na waaye li li garaaw mooy xaq yi ñu séq suñu diggante fen yi jëw yi rambaaj yi yàq yi rey yi viol yi yu bon yooyu ñuy wax yëpp yëpp yëpp yëpp loolu moo ñuy tardeel yowmal xiyaama moom laa laajoon alaaj Muhammad Ndiéguène ma ne ko inna allah sariul xisaab nan lañu koy déggee ak li ñu wax ci Euh, ne yomal xiyam fay gudd lol lol lol mu ma nit ñi li ñuy tardel yomal xiyam moy suñu digënté ak suñu suñu morom waye du suñu digënté ak suñu borom kon nit ñi war nañu bayyi xel seen digënté ak seen morom bi ci dess moy nit ki même budul sa borom même budul sa euh, euh sa morom yow sa bop képp ku ku dul am loy bayyi xel da nga yaqku waxuma la sax xam nga sank exemple bi ma jël sax dama ko jëlone rek pour mu metti tuuti rek moy dama wax ne soy nan sangara sax do ëppalé musiba am mais waxuma la sangara mais suukar rek do ci ëppale da ngay mujj am jabet da ngay mujj am jabet sawaay café do ci ëppale da ngay dem ba doto do naanul café di lox ataaye noonu lenen non motax tax baxul ñom ci sen bop euh, ataay ki ñuy jaay cigarette yi ñuy jaay ak sàngara yi yeeg bagage yu bari dañ ci bind tout abus et nuisible lepp lo ëppal rek mën na la ray mën na la gaañ ah dal dafa bax euh, diine l'islam moy diine retenu mooy diine euh, du juste milieu le juste milieu la la euh, l'harmonie entre le corps et le cœur l'harmonie entre l'esprit et la matière le spirituel et le temporel hein harmonie histoire demb ak tay harmonie sa du ak sa borom sa diggante ak sa morom nga bolé triangle bobu mu rafet sa lepp sa aduna bax sa wa kazalika jaalnaakum ummatan wasatan li takunu shuhada ala nas wa yakun rasul aleykum shahidan la nee na yéen dama leen def la la communauté du juste milieu ñun waruñoo ëppal ci café waruñoo ëppal ci ataay waruñoo ëppal ci kaani waruñoo ëppal ci sëy waruñoo ëppal ci naan waruñoo ëppal ci wax waruñu nit dafay du ëppal ci dara nit dafay ànd ak retenu surtout nag doo amee kilifa ku ñuy wax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dinañ ci ñëw léegi kon mbokk yi retenu moo ngi noonu duma ci duggaat ndax wax naa ko français ba pare waaye retenu damay wax ne képp koo xamante ni képp koo xamante ni euh, yaa ngi ñàkk yaa ngi ëppal la tax ngay ëppal mën naa jóge ci yii mën na jóge ci li ñuy wax injustice injustice mooy ñàkk dëgg mën naa tax nit ëppal nit tey jii tooñ nañ ko ci njuumte xamul mu wax wax wax kenn mënu ci dara mu xaru gis nga dafa ëppal moo tax mu xaru parce que dañ ko tooñ li am na lu ñuy wax tamit ñàkk kóllëre dina indi tax nit ëppal di nga gis koo xam ne musta wax lu ñaaw mais dafa daje koo xamante ni il a est dépendant quinze ans dimbali ko defal ko lépp mu xëy def ko noonam bi gën a rëy kooku sëy jii du waxee lu ëpp baa mu def lu ëpp c'est parce que dafa daje ku ingrat am na ñoo xamante ni duñu wax duñu fàttaliku sax lu baax waaye dafa am ay jëf yu ñaaw yoo xamante ni du ko nit gisee mais dootul mën a téye boppam dootul mën a téye boppam donc loolu day dafa bokk ci waral euh, euh, ñàkk retenu ëppal ci wax wala ci jëf ah damay damay damay waxtaan wu waxtaan wu doy waar la waxtaan wu philosophique la bi ci topp mooy lan lu bon léeg-léeg di nga gis ko xamante ne ku teey la ku dal la mais dafay gis lu bon dégg lu bon tax mu ñàkk dal ñàkk euh, retenu ba mujj wax lu ëpp baa mu def lu ëpp bi ci des tamit mooy lan li ñuy wax wor dégg léeg-léeg nga dégg koo xamante ni billaahi wor gu rëy wor trahison trahison yu rëy moo tax mu ëppal wax lu mu war ta wax baa mu ëppal feeñal lu mu war feeñal baa mu ëppal nettali ay histoire yoo xamante ni ay secret yoo xamante ni waroo ko daf ko waroon yóbbaale ci biir bàmmeelam kon yàlla nañu yàlla dimbali ci yii nii yooyu yii li ci ëpp mooy waral nit di ëppal muy muy mooy mooy xër rek xër gu ëpp yàlla nañu ci mu sol léegi nag nit du ëppalee limi liku li koy njëkk a dal mooy conséquences fa laa jëm li koy njëkk a dal mooy regret so ëppalé ci wax billahi du wax ja jallé rek ca saasi du sa xel sé rek li ngay njëkk wax rek moy oh suma ma duma du wax lool non jaru ko won billahi mënoon naa bàyyi mu jall mënoon naa ko muñu ah, sa way hmm? waron ko de waaw su du ko wax wala eh tay ji du tay ji dal du su doon tay ji moy demb vraiment du wax joju du génn sama gemmi seen maam El Hadj Mouhamad Ndiéguène daan na wax ne wax saan la saan mooy un g de pierre waaw balu fetal la daal pour ngeen comprendre maam El Hadj Mouhamad Ndiéguène nee na wax saan la su xësee ba génn jeex na te xamoo fu mu jëm ak lam fay yàq am na ñu bëri tey ji seen dund yàqu na détruire nañ seen àdduna ci benn phrase ci benn wax tey ji am na ñu jàppee lu bon dëkkal leen fu bon di leen waxal lu bon nit ñi jàpp leen di yàq seen der ci dugg dëkk bi te loolu ñu leen waxal yëpp dara du ci dëgg waaw benn wax ju bon kasse la wa amna ñom dañuy xaru dañuy dem seen yoon wala ñu gëna dëkk bi amna ñu ñëw fi Europe lool mo leen fi indi de wax ju bon tam la dem jiñ la lu bon wax lu xamanteni sa yoon neeku ci hmm? dëkk la fo dëkkul xass la toroxal la loolu euh, regret moy li li li li li ki ëppal mom li koy njëkk dal moy moy regret da ngay réccu fekk bay wayna mbuss fekk wax ja dem na fekk jëf ja dem na moment bi ngay sa xel di dellu si fekk na c'est trop tard c'est trop tard yàlla nañu yàlla dimbali bi ci topp mooy ëppal euh, dina indi li ñuy wax crime crime nag mooy ndey ja waaye am na lu ñuy wax délit moom mooy rakku crime délit tamit am na lu ñuy wax semi délit waaw cheikhu ñoo mook mook mook mook délit ñoo bokk tamit encore rakam la waaye am nañ seen rakk bi gën a ndaw moom la ñuy wax lan contravention

do dóor kenn bay dóoraale agent de police ban lay japp nga tardé sa liggéey yakal sa yef ben saaga la de wala ben wax la de doo ne ah garaawul takul ci sama yaram yonent bi def nañ ko def nañ ko lu ko gëna metti ñu ti yi daj nañ lu gëna mel metti lool nga dem sa yoon muñ ko so amone retenu dool du am xol leen bërki demb la wax ci Sénégal han ah? yow ñu jël la pour nga yégal ay bagages yégal ay fauteuils ay chaises yow nga yéeg ci kaw yéegal photo yi yéegal chaise yi tourner gis ndaw sax mu tënju di xam ngeen tënju mooy tuyee sa paañ doo ko takk sa ndigg mais ci sa kaw ngay nga ko sa kaw dënn nga koy takk mooy tënju jigéen ñi dañ koy def du ñuy sangu léeg-léeg waaw ah, moo tax yooyu yëpp il faut faire attention <laughs> il faut faire attention dama ko daan tere waaw yooyu baaxul wóorul wóorul wóorul wóorul wóorul wóorul wóorul wóorul waaw jëlal say yére yu yiw yu baax dem ba ca douche ba summee yóbbaale say serviette ak say yëpp solu ba rafet euh, sangu ba set sol euh, um, euh, fomp ba wow sol yére yu yu yu woyof daal yu yam daal laa bëgg a wax dem sa biir nekk solu foofu mais woddoob serviette bu la jotul woddoo tënju yooyu wóorul waaye gis ngeen waa ji nee na dafa dugg ci këru ndaw si di yéegal bagage yi gis ndaw si mu tënju mais du mënatul téye boppam fekk ñaar lañu ñu song ko ne dañuy sëy ak moom ba ñu sëyeeg moom ba pare ndaw si xàmmee na leen dégg na leen dégg na seeni i ndax dañ ko dañ ko doon sëyee ñu ñu ne kii duñ ko bàyyee dañ euh, dañuy boole nañ ko rey ñu xoj ko ba mu sedd guyu waa léegi yàq ñu àdduna jàmbur reyu ñu yaayu jàmbur reyu ñu tàntey jàmbur reyu ñu koo xamante ni mënoon na leen nekk sax ministre ci réew mi mënoon na jur wëliyu mënoon na jur nit ku baax ñu rey ko noonu loolu li ko waral mooy ñàkk téye sa bopp ëppal mooy ñàkk retenu ñàkk sa bakkan soo ko deful rek musiba dafay am bi ci des mooy lan ñàkk dal ñàkk téye sa bopp ñàkk ëppal dafay indi euh, ëppal bokk dafay indi li ñuy wax basculement basculement mooy lan mooy tey jii ah, da ngay toog sa morom yëpp toog ñuy tox yow daanoo tox mosoo tox xamoo tox euh, nga nga topp sa bakken rek ba ne ah waaye sa waay toxal leen ma waay ñu jël benn tox benn cigarette jox la nga mukki bu subaa nga newat genau ginnaaw suba nga newat benen mujj gi da ngay dem bay bay tok 30 cigarettes par jour gis nga ñak retenu moko waral mu dem ba ci bir nga xép cigarette bi dot la def dara dot la soulager nga jël yamba ñak gis nga ya gis nga fam lay yob yamba ja mo lay indil bis ñu jappal ak yamba tejj la kaso mais du do gennaté del delluwaat ci ja ba nga ray ci nit ñu tejjat la kasso 10 ans wala 20 ans nga gennat di continuer mu gi da nga nan li doyatuma nga dugg ci cocaïne cocaïne boobu nag moo lay rey ba nga dee ca morgue ya ngay mujjee gis nga kon ñàkk retenu ñàkk dal dalay yóbbu ci bàkkaar bi yóbbu la ci bàkkaar bee yóbbu ci bàkkaar ba nga dem ca bàkkaar bu mag ba yàlla nañu yàlla boole dimbali bi ci des mooy lan violence gis nga ñàkk dal danga koy gis léeg ci waxtaan day am ñàkk ëppal am na ay ustaas yu ëppal lañu wax moom ci Facebook moom ci YouTube ba tey dootul dañ ci lu ko waral ñàkk retenu duñ daloon dool du am am na politiciens lañ waxoon lañ wax ñak retenu mo leen duggal ci lolu ba ji ñoo ngi ci ay problème yaa ngi dégg am nañu mer am nañu mer au lieu que ñu dem japp ba sel guux ndox julli ñaari fiixal seen xol delu ci yalla nu ñu def dañuy waxu dem jënd seen 100 francs crédit tok ci internet tok ci facebook waaw diw daggali saaga nday wax lu bon di ki di xulo bu suba koku ñewat nga nek ca nit ñi di contane Hein, au lieu que nous nous nous zappe vidéo zappe euh, mais ci lañuy nek top ko gis nga ngay bon di wax bon ba hein, moment comprendre c'est fini c'est foutu que c'est trop tard wax nga lo xamanteni ni kenn mënatu koo supprimer wax nga lo xamanteni ni kenn mënatu koo dindi mu ngi ci Facebook bi mo ngi ci YouTube bi mo ngi ci téléphone gaay yi doo demee ba jubóo kokku tamit du wax ju bon ja moom moo nga fa batay kon yalla nañu yalla boole timbali ci ñu def attention kon ñeenti yoyu mom moy ñeenti conséquences yi gën mak ci ñàkk retenu moy regret crime ak euh, basculement ak li ñi wax lan euh, violence. léegi nak su ko defee euh, ñu ñu dugg touti nak ci côté philosophique bi gis nga ñàkk ëppal. ëppal ci kàddu wala ci wax dañoo am euh, euh, dafa am ni ma ko mën a tënkee ci ci wolof euh, am réew mu ñuy wax ndof waaye réew moomu dafa am ay frontières ay pays ay pays limitrophes yu ko yu ko wër pays yooyu ñeenti pays lañu ñeenti ñeenti réew ñeenti réew réew mu njëkk ma moom mooy lan boroom xel mu jeex réew ma ca top moy borom xol bu jeex réew ma ca top moy nit ku sës ñentel ba moy borom yaakaar bu tass gis nga réew yi ni ñom ñep dañu am frontière ak réew mu ñuy wax ndof te li graw graw li gëna graw man lima ma moy man bima ma ñenti ñeenti réew yii may tudd yëpp sen euh, sen sen sen capital mom moy lan sen capital moy lan moy ñak

Euh, ay cheikh yu nekkon fofu ben cheikh bi ñu ko benen cheikh bi yekko rek daal ne eh ñew Nandem, euh, euh, nan dem nan dem ci kala togn ma ko mais kay kay ñu waxtaan tuuti mu ne ma dedet bàyyil ma dem bala ma gif billahi lila mo wax bàyyi ma ma dem bala ma gif parce que lolu man mang ngi ko jànge woon sama maam El mohammed digen radiyallahu anhu so ñewan lu problème graw graw so ñewé da nan la togal ngay bëgg wax la dedet deglul deglul nopil lolu lay wax. wala mun la demal toog fee waaw def loolu ay dog ak yooyu waaw du ko defee nag moom day waxtaan rek ku ñëw rek mu waxtaan ak yow ba nga jàpp ne góor gi daf laa fàtte noonu lay def ba mu mat une heure de temps deux heures de da lay xool rek nag su demee ba gis la wax dara nga reetaan mu xam ne sa xel dellu si na mu woo la ne la waaw yow euh, yow yow lu la lan la sax yow sanq bi nga fiy ñëw de sa yaram xaw naa tàng de nga ne ko dara taxu ma a jóg dama laa ziar si woon rek su paree sama maam daal ne. mais xam naa ni kii dañ ko tooñ dañ ko mere woon jabarama ko tooñoon wala mbokkam waaye toog gi mu toog dal waxul deful toog ci nit ñi ñuy kaf di ree moo ko mujj féexal ba mu giif kon giif dafa am solo bul mer rek wax wala nga mer rek def billaahi doo ko defee dañ koy réccu te léeg-léeg réccu dafay paase waaw rëccu dafay paase yàlla nañu yàlla boole dimbali kon notion yii ma la wax yépp mooy xel mu jeex xol bu jeex sës ak yaakaar bu tas li ci ëpp seen capital ñoom ñii ñeenti réew yi seen capital moom mooy mooy mooy ñàkk dal mooy ëppal te ñoom ñii ñëpp dañoo am relation frontalière ak réew mi ñu wax ndof moo tax nit du ñàkk du xelam jeexee su defee rek jëfi dof lay def li ci ëpp su xolam jeexee du jëfee léeg-léeg jëfi dof lay def du sësee tamit ku sës quelqu'un qui est à bout du jëfee tamit li ci ëpp jëfi dof lay def waaye ki nga xamante tamit yaakaaram dafa tas wallahi il peut être très très très très dangereux mën na def lu nekk tey jii am na ñu bëri ñoo ngi dugg ci yàmba tey jii am na ñu bëri ñoo ngi dugg ci jaay yàmba ñoo ngi dugg ci drogue ñoo ngi dugg ci lu bëri lu ko waral seen yaakaar moo tas ils sont démoralisés dañoo yàqu seen xel moom moo tasaaroo léegi nag mbokk yi gis nga yi may wax nii yépp euh, ku ci bëgg a mucc da ngay góorgóorlu ci yeesal sa ngëm ci yàlla yeesal sa pas-pas ci yàlla fexee def sa kilifa muy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam billaahi ku ku ku yàlla dimbalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy sa kilifa yàlla di sa buur nga nangu ko yàlla di sa borom nga nangu ko xam ni moom mooy mudabbirul umuur mooy dox mbir yi da ngay noppalu laqad faaza man kaana rasulun imaamahu texe na mucc na dem na aljana directement àddunaam neex na àllaaxiraam mucc na ki nga xamante ni kilifaam mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa qaddim imaaman kunta waaw soo bëggee texe dootoo am benn yilimaan ci kaw suuf ku dul rasulullahi sallallahu alayhi mi nga xamante ni moo ñuy jàngal ne ki nga xamante ni mooy ar raqib ki yor mbir yi di ko contrôler di ko doxal mooy borom bi tabaraka wa taala waaw kay kooku la rasulullahi moomu mooy mooy borom affaire bi te kooku mooy jëmmi bañ a ëppal mooy jëmmi dal moy jëmmi tey moy jëmmi muñ moy jëmmi bayyi muy jall kilifa day jéggalé kilifa day kola waye kula def nga def ko kula wax nga wax ko su yagge da ngay melni mom toujours ma wax len ko bu len top gaay gaay duñ la gisé ngay gorgolu di sel di set su lu toñi nga jéggalé so déggé dara war xulo def ko kaf def ré def jam billahi dañuy bëgg nga melni ñom di saga di wax lu bon def lu bon su ko defé loolu su ëllëgé da lay indil ay problème da lay yàqal da lay parce que sa valeur yi ak sa vertu yépp ay dem nga déssé nak seeni jikko ñom su ko defé li ñu wax né gologu lak taat day bëgg morom ñom dañuy bëgg nga melni ñom di soxor di iñaan di violent di xasté di wax lu bon di di di tontu di defante dang koy deg ba ci euh, nit ñi fi da ngay deg ñu naan ah, waaw kay bu len top wuy jure ca ku len top do am dara do def dara do réaliser dara yow yow réalisation mën naa ëpp nga toppatoo say wéyjur réalisation mën naa ëpp nga dimbali say mbokk léegi da nga koy dégg mu bu leen dimbali appelu Sénégal sax soo ko gisee bu ko jël waaw moo ngoog pour heure bu bu la wooyee soxlaa tax ñu woo waaw kay santal yàlla ndax na koo xamante ni moo ngi fi ëppale la mais duñ nit ñi duñ amee soxla duñ dem ci moom yow lañ yaakaar yow kañ ñaanal yàlla yàlla may la xolu muñ yàlla may la ixlaas ba li ngay def bu mu nekk nit ñi na nekk moom yàlla waaye deuxièmement ñaanal yàlla yàlla may la compte bancaire bu fees ngay mën di western di monogramme di wari bu baax di mën a dimbali nit ñi bu yeboo ñu ñu ñu wor la bu yeboo ñu wax lu bon dama ne la sun la fayul yàlla lay fay sun la fayul yàlla dina yabal ku la fay sun la fayul di nga am dund gu tedd soo dee am jàmm sa biir bàmmeel su ëllëgee yomal xiyaam nga waaxu dugg aljanna nit ñi jaruñoo jëfal ku leen topp da ngay mujj weddi yàlla su leen ku leen topp yéefar ngay doon ku leen topp dootoo wax lu baax ku leen topp dootoo def lu baax ku leen topp dootoo dootoo ànd ak ñu baax da ngay mujj di doyadi les gens aiment les nit ñi dañoo bëgg ay médiocre ay taxawaalukat ay lambar lambarikat ay ñu doyadi ay ñoo xamante ni jikko yu bon kase lañ am wax yu bon kase doo leen toppee da ngay gaañu yàqu bu mu tee nag à côté nga vigilant nga teey nga dal nga xam li ngay def nga xam li ngay wax nga xam ñi ngay waxal li ci des nga jébbal lépp mu dabbirul umur muy borom bi tabaaraka wa taala mbokk yi nañu déglu sunu euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ñu wax nañu sooy bëgg sa sopp sax bëgg ko ndànk ndax mën naa nekk sa noonu bari na ñoo gisoon tey jii ñuy saagante fii ci Facebook ak internet ak presse bi ak YouTube tey jii ñooy ay ay xarit lañu c'est des mari c'est des amis amis inséparables même ci politique bi da koy gis ñuy wax lu bon tey jii ñooy ànd ak ñan doon wax lu bon ci diine ji noonu ci euh, dans notre vie sociale c'est comme sax mu ne doy bañ te sonontam bañ ko ndank ndax mëna nek sa soppi ëlëk lool dang koy gis ngay gis nit muy saga nit di wax wax yu bon mu jigi muy taxaw di tag fep fépp ah loolu nit ñu war nako wattu moo tax soi def defal ndank soy bëgg bëggal ndank soy bañ bañal ndank defal ndank loolu yonent bee ko wax sallallahu alayhi wasallam mom la say say bobu euh, jéem reprendre nan yo yo yo yo best enemy can be yo yo yo yo yo euh, best enemy can be your worst ah your worst friend non la yo yo best enemy can be your worst enemy. Uh, your best friend can be your worst enemy, and your worst enemy can be your can mooy pire donc euh, yaakaar na Bab Mali moo ko wax mais wax jooju euh, moo ngi jóge ci Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hmm? donc ñu def attention bu baax a baax a baax baax wax naa leen ne leen Rasulullah mii rek la ñu war a roy keroog Taif yéen ñëpp dégg ngeen ko xam ngeen ko bi Rasulullah sallallahu alayhi wa Euh, waa Taif bañ ko booleeg xaj yaak dof ya ñu gaañ ko ba dagg tànkam def ko lu nekk euh, blessé ko ci ci per tànkam sallallahu alayhi wasallam def ko lu nekk mais Jibril dafa ñëw ci yonent bi ne ko ñii ñaari montagne moo leen séq dëkk bi waxal rek ma montagne yi ñu ba waddal ko ci seen kaw ñoom ñëpp ñu xal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ne ko ndax yow la tooñ mu ne ko déedéet ndax yàlla la tooñ mu ne ko déedéet mu ne yàlla baal leen man baal naa leen ndax ci seen digg yi mën na cee juddoo ku ñuy gëm laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah jeex na جبريل نكو با ba bañ la njëkk ba ma njëkkee dégg maak sama mbokk malaayika yi ñu ne yaay raufun rahim dama ne lii ay turu yàlla la ay melo yàlla la waaye tey jii gëm naa ni yaay raufun rahim mooy laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufun rahimun te doy seet turu rahimun pourquoi parce que yonente bi alayhi wasallam moy borom yërmande gi moy borom xir gi moy borom bax gi lam yamtahinna bima ta'yal al uqulu bihi hirsan alayna falam nartab walam nahimi mooy ki ñu dofloowul ki nga xamante ni daf ñoo yar civiliser ñu euh, won ñu yoon ori tarbiya ñu dimbali ñu ba ñun ñëpp ñu nekk ay nit ñu baax ba mujj a nekk sax ay exemple kon loolu mooy taxawaay bi moo tax euh, soo jàngee Seyfiyu euh, Seyfiyu wax naa ni Seyfiyu lu jar a xool la waaw ñun nag dañ koy jàng rek jàng jàng tari tari tari bis bu nekk baax na subaak ngoon wala benn yoon ci bis bi baax na muslaay la la ci nekk ci ngëneel bari na ci àdduna ak ci àllaaxira la ci nekk ci leer kenn xamu ko la muy def ci kuy sukuraat moom rek ko xam la ci nekk ci ay mbóot kenn xamul nu mu toll waaye nag say fiyu dafa am ay xam yu nekk ci biir yu bëree bëree bëree bëri bëri waaw yàlla seede na lool du ñàkk dinañ ko yaatal fii ci jotaay bi dinañ jël say fiyu di ci génne xam yi ci yàlla dëxëñ ndax kenn xamul lu mu doon waaw kenn xamul lu doon waaw gars yi nag moom du ñu mere rek lañ koy jàng. waaw duñ mere dem toog ca naaj ba jàng ko wala ñu jàng ci ab lim pour kii te say fii ëpp na ci <laughs> ëpp na ci nit ëpp na ci nit déedéet déedéet ëpp naa def ëpp naa def jaamoo ko yàlla rek jaamoo ko yàlla sàkkoo ko ngir ngërmande yàlla rek jox ko hadi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ëpp naa xeexee déedéet waaw ëpp naa xeexee ndax soo xeexee soo ko soo ko xeexee te amoo noon yow lay cor waaw kay mbóot moom mag lañ koy jox tey soo ko xeexee te amoo noon te yow jote woo kenn wala nga jàpp ni nit daf la jàpp daf laa mere wala daf laa noonu te fekk noonu la soo ko sànnee jaasi ji day wàññeekuwaat ñëw am na ci ci ci ci Chine lu ñuy wax sabre volant say fii sabre volant lay doon ci koo xamante ni da koy jàng te jotewul a kenn dara dañ koy jaamo yàlla tarixa bi li ci nekk yëpp dañ koy jaamu yàlla kenn du ci xeexee yàlla nañu yàlla boole dimbali say tuuti rek di nga dégg euh, Cheikh di wax yàlla naan ko falaa yan taqisuma ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص لا أحد شهدك حد حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك وكيف يوصف كنه صفتك وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي الذي لم يزل ولا يزال أزليا باقيا أبديا سرمديا في الغيوب وحدك لا شريك لك ليس فيها أحد غيرك ولم يكن إله سواك حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر وتواضعت الملوك لهيبتك وعنت الوجوه بزلة الاستكانة لعزتك وانقاد كل شيء لعزمتك واستسلم كل شيء لقدرتك وخضعت لك الرقاب وظل هنالك التدبير في تصاريف الصفات في تصاريف الصفات فمن تفكر في إنشائك البديع وثنائك الرفيع وتعمق في ذلك رجع طرفه إليه خاسئا حسيرا وعقله مهب mahbutan wa tafakkuruhu mutahayyiran asira allahu akbar Taisan Taisan sey fi ngok soo koy dégg rek xam li li tabarakallah ha way lama la ci intéressé tay ñaari mbir la waw ñaari mbir la ben bi moy bi ma wax njëkk wax fa la yen arata ayzdad cheikh tidiane neena yalla lo bëgg mu yok du wàññeeku allahu akbar lo bëgg mu wañé ko du yokku déggal pourquoi parce que wanqada kullu shay'in li azamatika déggal wastaslama kullu shay'in li الله اكبر وعنت الوجوه بزله الاستكانه لعزتك وانقاد كل شيء لعزمتك واستسلم كل شيء لقدرتك الله اكبر شيخ نينا الله امول امول دارا دارا دارا لو بغ مو مو يوكو mais ku yàlla jeexal jeex nga parce que fii sax dara nekku fi kullu man alayha fan waaw kullu man alayha fan kullu nafsin zaiqatul mawti waaw kullu shay'in halikun illa wajhahu waaw cheikh nee na ko loo bëgg mu des fi daal di yokk moo fiy des waaye loo bëgg mu mu jeex dootul yokk ba faw loolu mooy lan ku yàlla jox am nga ku mu xañ doo am damay wax mbokk yi toujours na len gis ngeen benn mbir dal la nit wara lijeenti moy ndax mbir yalla ko yor lijeenti lol rek su la wore ni mbir yalla ko yor dalalal sa xel te góorgóorlu parce que yalla kum jox nga am kum ñak kum xagn nga ñak te yalla lum la jox ding ko jot way lum la xagn do ko jot maa ko wax billahi nit mënta am lu ko yalla joxul mbokk yi nit mënta ñak lu ko yalla jox kenn mënta am lu la yàlla jox kenn mënta am lu la yàlla joxul waaye kenn mënta ñàkk lu la yàlla jox foo mënti nekk ci àdduna noo mënti nekkee ci àdduna loo mënti nekkee ci àdduna la yàlla rëdd ci sa jëb yii décrété ko wallahi foo mënti nekk mu fekk la fa loo mënti loo mënti bëgg tamit ak pexe boo mënti jël te yàlla bindu ko ci woon ci yow doo ko jot waaye lii ku ko am pas ci pas-pas da ngay noppalu dootoo soxor dootoo iñaan dootoo soxori kenn dootoo fi nekk naan kii lu tax mu am lii lu tax diw am lii lu tax diw def lii lu tax lii lu tax diw xañ ñu xañ ko nangam te toujours yàlla jox ñu exemple ñoo xamante ni waruñoo am dara yàlla jox leen ba mu doy ñoo xamante ni dañoo jàpp ni ñoom rek am yàlla xañ leen ba amatuñ tus waaw kon yàlla ñu yàlla boole dimbali te am dëgg mooy am yàlla yàlla ñu ko yàlla defal moo tax nee na ko falaa yantaqisu maa aradta an yazdaada wala yazdaadu maa aradta an yantaqis yantaqis pourquoi parce que laa ahada shahidaka xiina fatartal xalqa cheikh nee na yàlla mais lan moo tax yow loo bëgg yàlla muy mu yokk muy wàññeeku wala loo bëgg mu wàññeeku mu yokku te yow bi ngay bind bind mbindee fi kenn fekku la fa mbindee fi sax xamuñu woon ne yow ñoom existé nañ bind nañ leen ñun ñii sax dem nañ ba am ay at yu bëri soog a xam ne ñun nekk nañu suñu tur yi sax xamuñu ko woon هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ويو <laughs> مبري يالا كوير شيخ نينا يالا فلا ينتخس ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتخس بوركوا باسكو لا أحد شهدك حين فطرت الخلق بيغي بين من دي في كين يوكو بالا غن نام نفا لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند أمو مرم musoko am te doko am wala didda amoo contraire xii xadaraka xii bara'at an nufus ken fekke wul won bi ngay bi ngay moñ minde fi di bind sen bakken di bind sen ruhi ken fekke ko alamul arwah ñun ñëpp ko fekke won way kan moko fatliku ku ci xam dara wa yow wërsëg yi noonu la mel teranga yi non la mel kenn du am lu ko yàlla joxul kenn du ñak lu ko yàlla xañ mo ngok mu ne ko euh lol motax شيخ كبير من يلا فلك الحمد على أن جعلتني من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل بني آدم عليه السلام الذين كرمتهم في البر والبحر ورزقتهم من الطيبات وفضلتهم على كثير ممن خلقت تفضيلا فجعلت لي سمعا يسمع آياتك وعقلا يفهم إيمانك وبصرا يرى قدرتك وفؤادا يعرف يعرف عزمتك وقلبا يعتقد توحيدك فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهد وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت وحي لم وحي لم ترث الحياة من حي ب وخجا جيخ ليسان والله دوما كوي تاري دوما بوغ سخ اريتي واي نك توبي في لا فنان دونك فوف لي بوغ فوف مو ني يالا يالا ماغ لاي نيان nga nangul ma sama cant gi ma ndax sey fiiw pour sante yàlla kasse la allahumma inni ahmaduka wa antal mahmud wa antal lil ahlun wa ashkuruka wa antal mashkur wa antal shukr ahlun lol kasse la ke sey fiiw pour sante yàlla kasse la motax duñ koy jexal tamit walhamdulillah awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan lañ koy jexale jexna parce que lépp say fiiw sante yàlla kasse la waaw mune yàlla maa ngi lay sante ci boole gi nga ma boole ci xétu yonent yàlla Muhammad mi nga xamanteni mom nga gënal ci mbindeef yëpp mom yonent bi mom nga gënal ci mindeef waye xeetam mom nga gënal ci mindeef yëpp waye ñi am formam mom Seydina Muhammad ñom nga gënal ci kaw mindeef yàlla yëpp mu ne ko yamo ci lool fa jaalta li sam'an ha yasmau ayatika ya ma defal deg may deg say say aya yu yàlla wa aqlan yafhamu imanaka xel mo xamanteni ci lay déggé ngëm gi ma lay gëm wa fu'adan ya'rifu azamataka ak xol bo xamanteni ni ci laay xamee sag màggaay وقلبا يعتقد توحيدك اقول بو خامتاني تي لاي لي غمي امي امي تي توحيد ها مونغوك مونيكو كون ماغ لي غرم يو يالا من سانتنا لا واي سما بكك نا سما جيم سما ييب نيغي بوكو اند دي لا سانت ولا نك وك نفسي شاكره وبحق عليه شاهدته لما أم لما أم لما أم لما أم تي أي أك تي من تمن تخو مكو نمكو ورا تخو خو منهم طول من يبي الله ndax yaa dund avant bépp dund dund après bépp dund dund ak ànd ak bépp dund dund te sa dund amul fenn fu mu jóge te dund ku dul yow am na fu mu jóge kon loolu euh, kaawteef la ci kaawteefu yàlla yal nañu yàlla boole dimbali kon sëy fi ngoog tey jii daf ma intéressé woon lool pour ñu euh, xam ne lii ma doon wax mooy yii euh, samaan fahman basoran fuadan aqlan yi yep ay xewul yalla la pour lan ñu mëna reconnaître ay ay terangam ay xewulam ngir baña xolati xoolati fi ma ngi len di watal ci yalla ne fek yaa ngi gis mbindeef fi do am dara ci yalla li pour arifine ila wax de sayyidna musa bam waxe ak yalla ne ko dama bëgg exi ci yow yalla dana ko sanil sa bop ta nga ñew lolu lolu arifine wax joju fek fi yalla ngi fi yow mom la ngay sakku ci yalla doo ko am da ngay jeex tak ci son borom xamni mom dong mo fi nek waye tamit ma ngi len di xamal ni lolu ñi ci agul maqama benen bi moy billahi nit ñi ku len top doto da ngay da ngay wedd yalla fa daane daanelee mbok yi ben wax bu bu daw yaram ben nit yalla dañ ko wax ne ko amna na hadith bu daw yaram bu yonent bi wax ne euh, mujjug jamono tey ci sa diine mo ngi melni nga tey xalu safara ñu ne ko ah loolu daw na yaram loolu triste na loolu nangam mu ne déedéet loolu triste na mais am na lu ko gën a triste ñu ne ko lan la mu ne xadis bi yonent bi wax ne mujjug jamono nit ki day xëy nekk jullit su ngoonee mu nekk yéefar wala mu nekk ngo ci ngoon gi jullit su xëyee suba nekk yéefar foofu lañu àgg te yëf yaa ngi nii internet bi euh, Facebook bi YouTube bi mais bis bu nekk nga dégg ci ay kàddu yoo xamante ni ku mu mujj ci sa làmmiñ safara nga jëm directement parce que kaddu kéefër la kaddu gu bokkaale la kaddu weddi yàlla la kaddu wutal yàlla morom la kaddu wutal yàlla ndend la weddi existence yàlla la da ngay dégg ñuy saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ci dee sawar nga jëm da ngay dégg ñuy saaga nit yi yi nga dañoo jël seen ko ci mais bi yonent da ngay da ngay jamono da ngay su nga nga yendoo nekk jul euh, nga nga yendoo nekk julit balay guddi nga nekk yéefar ah loolu raglu na de nañ def très attention yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla boole jàppale yàlla nañu yàlla boole suturaal bi jaahi sayyidina wa nabina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon <clears throat> yëf yaa ngoog wax jaa ngoog waxtaan waa ngoog leeral yaa ngoog jàngale yaa ngoog kon ñu dal teey ba a ëppal ci sunuy wax ba a ëppal ci sunuy jëf bañu ëppal ci suñuy fayu bañu ëppal ci suñuy tontu xam li ñuy wax xam niñ koy waxé xam fiñ koy waxé xam kiñ koy waxal euh, lu mënti am ñu téy rek dal rek def ndank su ko euh, téy euh wan la yoon tek wan la yoon dal wan la yoon su ëllëgé do regré do réccu am nañu bari bëri loolu la mujj rek di wax ay way way su ko xamoon duma ko wax ay way way su ko xamoon duma ko def ay way su ko xamoon duma ko di ay way ya lay tani كنت ترابا ايوا يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ايوا يا ليتني يا ليتني رك يا اي سمكو يغون اي سمكو سانتيرون اي سمكو خمون اي نانغام اي نانغام اي نانغام كون ابل باخول ëppal ci wax baaxul ëppal ci jëf baaxul ëppal ci fayu baaxul ëppal ci tontu baaxul nañuy def ndànk ci suñuy xarakaat ak suñuy kar sakanaat suñuy xataraat suñuy shukuk suñuy zunun suñu lépp nañ ciy def ndànk di tey su ko defee yàlla subhaanahu wa taala ci yërmandeem ak mbaaxam gi nga xamante ni amul limite amul fu mu commencement commencé amul fu mu jeexee amul fu mu feeñee amul fu mu nëbboo waaye fépp foo làmb rek yaa ngi daj mbaaxu yàlla gi yaa ngi daj euh, teraanga ak yàlla gi mbokk yi ñu ñu bàyyi ko xel kon nañ def attention ci dal loolu lañ bëggoon séddoo ak yéen en attendant ñu mën a euh, ubbi waxtaan yi képp koo xamante ni tabaarakallaahu bëgg nga dugg ci waxtaan wi may nan la nga dugg incha allah sànni sa mën a wax li nga bëgg a wax tabaarakallaa am na ñu ma euh, gisoon sànq ñu doon jéem a ko ñu wax satu Jàng moo ngi doon jéem a dugg euh, Mbay moo ngi doon jéem a dugg sëñ Abdul Aziz moo ngi doon koo xamante ni euh, yaa ngi ci yoon wi bëgg participer ci waxtaanu tey wii nga xamante ni moom la waxtaan ci ëppal ak ñàkk ëppal ak ëppal li mu mën a indi ëppal ci wax ëppal ci jëf ëppal ci réaction même ëppal ci xool ah, ah am na ñoo xamante ni dañoo mën a xool <laughs> daal lay xool ba nga daw am na ñoo xamante ni sëñ bi tabarkàlla du ëppal daal baaxul loo gis daal le juste milieu parce que notre umma la umma du prophète c'est la umma du juste milieu hmm. waaw wallaay dëgg la dëgg la sunu baay Abdoul Aziz Dia moo ngi koy wax nee na nee na adduna euh, bi léegi euh, li ci garaaw nee na euh, wax ju ñaaw wax ju bon hmm. ak jëf ju bon moy mom lañ ériger en règle waaw mom lañ def modd tay ji so so waxtane sax wax ju bax duñ la déglu tay ji da ngay def vidéo wax ci lu bax euh, nga am ay 30 euh, vues 45 vues mais do defone ben vidéo ben dag ben saga légui mu mot dix vues waaw xoolal fecc yoy ñi def han ah, mu wër aduna xolal wax yu ñaaw yi ñi wax mu wër aduna te yoy du dara ña ko doon def tey jii fàtte nañ leen kenn déggatu leen ah yooyu amul mujj amul mujj wax ju bon baaxul wax ju bon baaxul waaye tamit nañu def attention déglu wax ju bon moo ko wax wax ju bon benn la <laughs> kuy déglu saaga yaa ngi saaga wala fi nee nañ kuy wax ak muuma muuma muuma kuy wax ak moom doo kuy wax ak muuma da ngay muuma sëñ daara kuy wax ak muuma da ngay waaye tamit képp kuy déglu ay saaga yaa ngi saaga képp kuy déglu ay saaga xamal ni yaa ngi saaga moo tax saaga kenn du ko déglu c'est très dangereux doomu aadama ab jullit tuddee yàlla sama làmmiñ wi ngay zikare sa làmmiñ wi ngay jàng alquran nga ciy génne lu mel ni ay saaga lu mel ni ay xaste lu mel ni ay wax yu bon lu mel ni tam lu mel ni dëkkal nit fu lu mel ni euh, di wax wax yu xam ne daal ku ko dégg musiba dafay am ah dafay am te loolu waxtaane woon naa ko ba noppi ne leen nit ku nit ki eh, eh, nit ku nit ku wax wax ju baax yàlla da ciy bind malaaka yërmande waaye nit ku wax safaan yàlla da ciy bind malaaka mbugal ah loolu waxtaane woon naa ko ba pare ba mu leer ci bopp nit ki ñi hmm? nañu def très attention ci sunuy kàddu ci sunuy jëf ci sunuy wax ah yàlla wax na ko eh, nee na sunu lépp du ëllëgee yamal xiyaama ñu ko laaj ah inna sama wal basara wal fuaada ah kullu ulaayika kaana anhu masulan la yàlla wax moo tax Cheikh Tidiane wax ko yàlla ne ko fa jaal fa jaalta li samaan yasmau ayatika wa aqlan yafhamu imanaka wa basaran yara qudrataka wa fuadan yarifu azamataka wa qalban yaataqidu tawxidaka waaw juróomi juróom juróom yooyu la ko wax ne ko yii yaa ma ko defal yow yàlla yaa ñu ko defal ñun ñëpp yow yàlla te def gi amul kenn kenn kenn kenn koo xamante ni jàppale na la ci yow yàlla ndax loolu yow rek yaa ko mën a def waaw yii juróomi yaa ko moom te juróomi benn bu ci nekk am na fu muy taxawee ci Eh, xadaraat yàlla yi am na fu muy taxawee ci salaatul fatihi juróomi eh, taxawaay yi nekk ci biir salaatul fatihi waxtu julli juróomi ak ak yu nekk kooku dégg-dégg bu garaaw ak garaaw garaaw moo ci am. Hmm? cheikh nee na yàlla loolu yaa ma ko defal du kenn du alalu kenn du xam-xamu kenn du doole kenn mais yow eh, yow yow yaa ko yow yaa ñu ko defal yow yàlla waaw xoolal xoolal lu mel ni xel ah lu mel ni xel ah lu mel ni dégg sax nañ commencé ci dégg rek ah dégg dégg dafa graw de ah lii nopp cartilage système auditif bi la ilaha illallah muhammadu rasulullah oh, oh, oh léeg-léeg ñu am ay émission yoo xamante ni da ngay da ngay mujj yéemu ci yàlla subhanallah rek ngay wax yàlla nim ko programmer nim ko organiser nim ko defaree nim ko waajalee dem na ba waajal ci sax du poison dans l'oreille du poison ñu ne ko waaw lu tax poison bi mu ne ngir duggee ci biir nopp

salaamaaleykum adduna salaamaaleykum salaam bisimilah ñu ñu ñu ñu déglu yëpp di siyaam cofeel jërëjëf di leen ndokkale bu baax di rek ndax loolu ngay wax di siyaam bu baax suñu baay suñu baay mel na ni duñ ko koo xam ne yaa ngi ko def mhm. di ko siyaam bu baax

sëriñ bi xaw ba xam li ma wax mu ngi xaw ba xam li may wax mu ngi leew. wala wala beddi beddi beddi. waaw. defe naa moo olof exact bi beddi. ma ni mel na ni jamono. fitna yi nekk yëpp. loolu daf caa bokk. beddi waaw. Euh, euh, soo gisee soo gisee daanaka maa ngi jégalu waaye maa ko def espoir mu soo sama lakostu bàyyi sama bokk mu def nii pour tey euh, ku yàlla tombel sama moom bu yàlla tooleel ngay ngay ngay ngay gis direct bi seen am maxu mbaay mu doye di jeune di kuuti kuuti ak ni mu soloo nga ne lan la ñuy wax waa jeeg lakostam buy ak ku yi ku ku ku baax kii li ñuy waxtaanee da war na am solo parce que tey euh, dafa kenn déglootu leen waaw lan la li ngay def nii waaw oh, waaw pour euh, gars yi ndeysaan ndeysaan xam nga da ngaa wax ñetti mbir te loolu boo composé àdduna maa ngi ñëw de maa ngi ñëw maa ngi ñëw bu baax nga bi suñu borom subhaanahu yàlla su borom subhanahu taala ak ñi mbokkal société bi hmm. ak ñooñu xam nga yàlla moom daanaka am am problème ndax foofu dañ la defal xam nga sax fee gaa yaa ngay ay xam yàlla ak yàlla yooyu waa ji toog yàlla du yàlla du ku ñuy gis xam waaye ku jaamu la

moi moi yelleef li nga xam ni moi moi je suis a def ci ñun soo émission émission télévisée wala émission yi am ci rajo yi wala jot ay waxtaankaay à chaque fois la waaw ma si ma des fois il suffit juste moi li de retenir ngi di retenir juste rek ben ben ben 30 secondes je

à côté nag boo xam ne war nga ci mën a sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax waaw Youssou da nga da nga waxtaanee neex na ma mais waxtaan bi dafa maa ñëw yàlla seede na ko. bisimilah. loolu mos a waxtaanee neex na ma waaye dafa maa ñëw parce que man damaa gëm ni adduna bi waaw kenn ku ci nekk sa njariñu moom la. waaw kenn ku ci nekk tamit taatoo mu àddiw. léegi ça reste à savoir que est-ce que est-ce que xam nga la métode la méthode la méthode la méthode de dire ce que tu waxin wi sëñ sëñ bi mbaa sama réseau leer na ñoo ngi lay dégg de yaakaar naa mbokk yi yéen a ngi dégg mbaxtaar de bu dee yéen a ngi koy dégg bu leer commentaire waaw tey jii mhm. bëgg bëgg bëgg waaw ah, ña bëgg naa yàlla bëgg naa ko de ndax lu ma loo waxtaanee neex na. je je tonton. ah. xaalis ma rek gars yi ku ku bu dee yéen a ngi koy dégg ngeen bind ko message comme ça xelam gën a daal mais man maa ngi lay dégg te du ma lay dégg yaakaar naa gars yi ak lay dégg. Ah. kon mat na ah, parce que li sax loolu thème bi thème bi dama ko approprier sama bopp di thème. kon may naa la ko. waaw sama bopp. <laughs> alhamdulilah merci kontaan naa ci lool. te na sama gars yu bëri yoo xam ne nii bu ñu jotee lien bi dinañ xam ne sama waxtaan bi ñëw na gis nga sëriñ sëriñ tey yàqu na yàqu na yàqu na parce que moom yàqu na yàqu na moom ci boppam parce que tux na wala naan na wala wax na lu mu xamul ba tey jii xat na mënatu la mënatu la sax xool ay waa këram ndax ruus na ñëpp ngi dégg lu leer. comme ni nga ko waxee nit gàddaay na dem nit gàddaay na dem dëkk ak dëkk waaye ay ay bu fekkoon ni ay bu fekkoon ni keroog bala xew xewee est-ce que keroog buñ ko laajoon ni li ngay def nii lu tax lan moo la jaral lii li ngay def lan la lan la Maxu Mbaay tux mi ngay tux nii tux mi ngay tux ku lan la. Maxumbaay tux mi may tux nii pour lan la lan lan moo tax ngay tux. <laughs> déedéet waaye waaye déedéet déedéet ñu ñu ngi amoo amoo daal kàddu te te am na ci dëkk yoo xam ni sax ragal naa ni léegi foo voté ay loi yoo xam ne nii soo soo defee lu mel ni viol dañuy dañuy def ay étude xool circonstance viol bi nan la demee ku jigéen ki bi ñu koy violé ban heure la fan ngeen nekkoon lan la soloon rencontre bi lu ko waral lan la doon def foofu. loolu loolu doon def foofu. loolu la ñuy wax victimologie. science boobu moom la ñuy wax la victimologie. te loolu te loolu du tubaab bi de. la la science étudie la place de la victime. dans infra Mm-hmm. Mm-hmm. loolu loolu du tubaab bi ndax ndax euh, suñu ustaas yi bu nuy jàngal nu nuy wax ni ah, li ñuy maa ngi jégul ci thème bi li ngay wax ni li ñuy wax ñun fii xaw ma mooy yàlla defe naa waaw moo moo góor góor jigéen bu séq ñu ni te liñ ko ah, ah, ñi ko mën a seede mooy faaw am ñeenti nit jóge kenn ku ne jóge fu bokkul ak fi sa morom jóge ñeen ñëw fekkee waaye rawatul tamit waaw loolu mun parce que aw ma mooy waaye ñi may dégg dañ comprendre fi bëgg wax kon foofu yàlla mu ngi suturaal nit mu ngi koy lay mu ngi wax sax ni bu ñu ñëwee ustaas wax de ñu ngi jàngale ci loolu bu ñu ñëwee ni la Maxu Mbaay nee na Maxu wax na sàngam ñaawteef layal ko xaw ma soixante xaw ma soixante-dix lay ah waaw waa nag te te waa diine l'islam ndax ndax du pilis di diine yokkute ah ah diine l'islam du ñun ñoo waa fat ñi ñi bedd wallahi ñoo waa fat ñi ñi bedd daa mel ñi ñi nga xam ne nii dañoo am ay naqa mënuñu koo wax kenn kenn kenn kenn daa mel diine l'islam leen déglu de yonte bi lañ doon wax ni gën ci am moo gën ci ñu amul ndax ñi am day ni bàyyi ak li ñu am ñi am yonente bi gën ci ñoom salaay salaam ndax day ni ak alal waaye ñi ñàkk yonente bi gën ci ñoom ndax lu mu bokk ak ñoom te du leen laaj ñi seen ñi ñi jiwim mi nag ku gën ci ñoom jiwim ñi ñi nga xam ne bu ñu bu ñu geesoo ni gisuñu ndey gisuñu bàyyi yonente bi gën ci ñoom sallallahu alayhi wasallam waa waa jigéen ñi nag jigéen ñi jigéen ñi ku gën ci ñoom yonente bi gën ci ñoom waaye léegi nag sëñ bi nag bu demee nag ba li nga xam ne ni waaw kay waaw kay yéen sax waaw waaw kay sax ñu kilifa yoo koy wax yéen boom xam-xam yéen a koy wax yéen ni sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu boom subhanahu wa taala taggeewu ko lenn waaw waaw waaw waaw léegi nag léegi nag sëriñ nag kon kon nag léegi nag léegi nag nañu ñëw nag léegi waxtaan kon boobu tey da ngay waaj nii. mooy ñett yi nga wax mooy relation bi dox ci diggante jaam bi ak boromam relation bi dox ci jaam bi ak ay moromam waaye relation bi dox ci jaam ak boppam. damay waaj sëñ bi ñoo ko di ñoo sëñ li ma wax ni <laughs> sëñ li de baa ngi àlaa jax men jëgën damaa ñëw moo tax may moo tax may moo tax may waxoon ba am réseau bi baax na wala baaxul. leer na ñaañ. daf maa ñëw de jigéen loo waxtaanee ñëw na ma waaye bii da cee waw yàlla seede na ko gisoo tey damaa naturel la kostu laa def la kostu bàyyi sam bopp bi nii baa ngi jégalu sax. waaw c'est juste rek pour c'est juste rek pour pour pour pour démontrer wane ni. ah xaalis maxtaar maxtaar gay gay gars yi nee nañu gars yi nañu gars yi nañu bul dem de gay yi nañu bul dem ndax euh, dégg na sama papa legi mo ngi lay wax ne la bul teggi sa sa tank ci accélérateur bi kon fa nga fa euh, fa nga fa nga wokk daal foofu mooy xasan hmm? foo dugal sa loxo fek fa dom delu wat ko fa ah haj maxtaar kon gay yaa ngi lay xaar de bul dem de delu ci watal legi waaw yow mom gaa yi ngi lay déglu ah Makhtar de vraiment il faut que il faut ñu dégluwaat ko nag ndax man euh, wax dëgg yàlla sawaay moom li ci ëpp du yëkkatiwaan rek xam naa le muy wax waaye tey dafa mel ni dafa am beneen dégg-dégg beneen niveau de compréhension bu mu am ci débat tey bi moom maxtar mbay donc moo tax euh, ñoo ngi namm bu baax mu jege si du gàtt ndax mën a àggale euh, raisonnement dafa mel ni ñoo ngi doon laytaay bi daal moom ko Euh, il était en train de poser son, son, son, son débat, hein, de ses idées. Il était en train de nous euh, ouvrir des portes, des pistes de réflexion. Hein, Maxtar gaa yaa ngi lay déglu incha allah gaa lay déglu kon doo mën a dugaat rek dugaatal mbokk yi tamit ñeneen ñi keneen ku bëgg a taala euh, la porte est ouverte parce que comme nous m'en leen ko waxee mën ngeen a tamit euh, participer par par texto hein

waaw Maxtar jubbantil kii bi tuuti rek mu gën a jël sa kanam. gaa yaa ngi lay déglu bu baax. alhamdulilah. waaw sëriñ bi kon kon kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi kontaan bu baax vraiment. c'est juste rek que ni mooy mooy bi nga xam ne ci ci ci euh, que ni yëf ñetti ñetti pàcc la benn bi moom nee naa amul débat ndax foofu relation la nit ki ak jaam waaw suñu doom subhaanahu wa taala dañoo digal teew bi kon da ngay jëfe ndigal rek bàyyi bàyyi teew yi beneen bi mooy diggante nit ki ak ak ak ci ci ci lépp ba ci géej ba ci garab yi waaw géej bi ba ci garab yi bàyyi xel ragal naa ay jënd ki ak garab kon ragal naa a ah, toog léegi nag mu am tamit beneen moom solo yëpp sax mooy sa diggante ak sa bopp yow en personne en relation avec avec toi même waaw sëñ bi mu mel ni tey da nga tey da nga tey tey tey da nga da wala da nga fu sensible waaw te te te te gaañu ah du ma ne xamuñu ko de pour maanu duma ma wax ni xamuñu ko waaye xam naa duñ ko waxtaanee. waxuñu waaye xam naa duñ ko waaw xoolal xoolal sëriñ bi nga xam ne nii lépp ay ñaawteef la ay ñaawteef la yoo xam ne nii nit nit nit mu ngi koy mu ngi koy def jëme ko ci moomu nitam mm-hmm. ndax boppam la ko njëkkee exemple bi nga joxe bi nga xam ne moo xew ba gàddee bi foofu Ndakaaru ragal naa ni doy na ci wane ni seen ñu dimension def lu ñaaw toll. waaye <laughs> waaye li may bëgg a wax yow wax nga ko may bëgg a wax wax nga ko léegi ñaata nit di def ñaata def acte yu baax ay acte baax ay yu baax ay jëf yu baax. ñoo xam ñu jëmee ko ci seen bopp parce que nit dina def lu baax loo xam ne nii boppam la boppam la concerné kese même si bu dee en am na ci wàllu mais ci boppam la ko tàmbale mhm. wala mu def loo xam ne nii at bi yëpp waroon nañ ko wax ni ko sa waay jërëjëf nii nga def nii nga waroon a def li ngay wax ni baax na

mooy que ni sëñ bi dafa teg débat boo xam ne nii ñëpp ci mën a participer ku jullit sax mu nga cee wax. waaw dëgg la. léegi nag mu joxe exemple bi dàq muy nga joxe exemple bi neex mooy lépp da ko teg ci diine. waaye man tey sama kàddu dama ko jël teg ko ci citoyen citoyen lambda bi dund société bi moo xam jullit la moo xam du jullit. ma dellu ci wax duñ la wax duñ di quoi duñ wax félicitation duñ la wax di courage buñ la ko waxee rek dégg nga mm-hmm. buñ la ko waxee rek dégg nga mm-hmm. même si bu dee même si bu dee nit ki nit ki waaw góor waaw góor nit ñi même si bu dee li may wax dañ ko dégg bu baax si bu dee nit ki waaw góor nit ñi wa warut a mën a contribuer ci ay actam côté positif wala négatif parce que nit ki ab jullit lépp lu mu def da cee war a sédd suñu boobu subhaanahu wa parce que fay dëgg foofu la nekk ngërmande dëgg foofu la nekk. waaye sëñ bi daa ñoo xam dañoo faible. ñoo xam ne dañoo faible xam naa ni sax loolu ñu naan euh, yàlla ba ba jamono dee tey ba ba jamono dee jamono ba jamono dee jamono ba tey mu sa jox ceeb. bu doon am na loxo mos a jox nit dankub cër mu dugal ci gémmiñam lépp mu def daf ko jaale ci doomu aadama xam naa ni mhm. bokk na ci mbiw yooyu bëgg na nit ki xam ni li olof naa nit mooy nit nitay gaabam waaye nit nitay posonam jërëjëf ah man xaw sëñ bi xaw ma li may wax ba xam leenaan déet parce que li may fii la fii la ak fii mais mbokk yi nee nañ nga defar sa sa position caméra bi ba ba sa kanam gën a leer nga tegaat ko bu baax jubanti tuuti rek ba ay baax na waaw bon bismillah ñëpp ngi lay déglu waaw t'écoute waaw xam nga nit nitay garabam waaye nit nitay nit nitay garabam waaye nit nitay waaye nit nitay ah mooy yow sëñ bi wallaay diggante nit ak yàlla foofu noonu loolu kumpa la loolu xanaa yéen ñi yàlla gërëm yéen ñi yàlla yéen ñi yàlla wan foofu yéen a fay xuus waaye ci jëfe ndigal la ñuy jéem a nekk ak bàyyi tere suñu diggante ak yàlla léegi nag li des problème bi dëgg dëgg nit ki ak ak ay moomam waaye nit ki ak nit ki ak boppam allahu akbar foofu nag la problème amee ah yow yaa yow ah, ah, en en 2009 en 2009 yaa ñu joxoon leçon de morale boobu 2009 22 juillet 2009 wala 2010 ñaari at yooyu la daal keroog yaa ngi ñuy wax ni faites très attention yéen ñi xëyeeg yàlla teral leen ubbil leen buntu wërsëg. Hmm. bu leen bu leen bu leen yaakaar ni seen wërsëg boobu yéen a ko moom de mënoo leen a bokk ci famille. fa yow yow xam nga ni maçon maçon maçon maçon jàng jàng garderie d'enfants ba université mun ta fay benn journée maçon maçon laa wax kon kon kon kon kon kon bu fekkoon ku sonn kon xam nga ni maçon bi kon xam nga ni journée maçon bi euh, euh, biokar bi ko ëppale waaye yow ngay ko ak a yeenu saaku ya ak ak ca marché ba ak ak dokeer ba ca ja port ba quand même ah <laughs> waaw waaw waaw waaw yow nga xëy tey yàlla ubbi la nga mën a nga mën a fay cent maçon cent maçon nga mën leen a fay ci benn journée kenn nga fay ko trois mille cent maçon yow xam nga ne sa teraanga gi boo ko santewul yàlla bàyyi xel bàyyi xel bàyyi xel ñi nga tane xam nga ni yow xam nga ni yow xamoo li xew. xamoo li réel dafa xaw xamoo na ba tey ci retenu la de mooy retenu rek mooy daloo parce que retenu mooy nga toog mooy nga toog nii toog xam nga gars yi sax dañ koy wax ñu ni ba ñu ni nit bu bu doxee ba guddi ba woo ñëw tëdd su tëddee ci njëganaayam na xalaat li mu def ci journée bi baax ak li bon loolu lépp mooy retenu retenu man retenu sama dégg-dégg. mooy nit ki dafa am benn temps boo xam ne moom la ak boppam. oh waaw waaw. allo Serigne. maa ngi lay dégg bu baax lu rëy nga wax. nit ki wëtu wëtu nii. man li tax ma xuus nii yëpp nii déedéet bii bi problème de parce que wutali loolu la mooy yow. waaw tabarkàlla waaw waaw nit nit ki mooy nit ki waaw jamono bu ne jamono bu nekk rek war naa dàq lépp tëj tëj ay pensées am tëj léppam nekk ak moom ak ci ak acte euh, devant toute situation. waaw Maxtaar. devant toute situation. Ah. foofu foofu de moom dina dinaa la cax moom. waaw. waaw soo wéeteeg sa bopp yow. te fekk yow sa bopp yow baaxoo. nooy def. waaw. waaw foofu nag bul juum yow jullit bi indi indi indi jikkoy Seydunaa Muhammadu sallallaahu alayhi wa sallam. ci sama tey sama waa ji. man wax naa ko sànq sànq nee naa la sànq sànq nee naa la nee la mbir yi ñett nga la ñett ñett la ñett diggante suñu boom subhaanahu wa taala yow ak sa bopp yow jamono yàlla moom amul problème foofu jëfee ndigal la bàyyi tawee foofu foofu foofu yéen a ko moom yéen ko yéen a koy xuus. exactement moom duñ ko dugg. cent. ah. demal waxal lu la neex fi mu <laughs> sëñ bi sëñ bi sëñ bi sa lii sa lii direct bi baax na de waaye lii lii lii lii lii débat télévisé la la woo doon la télévision nationale wala les télévisions nationaux ñoo ko teg hmm. ah lii mais lii lii di toj jamono nii affaire bi toj li li xew ci jamono nii du ko toj ñu bàyyi nii comme ça muy dem nii ñi woote diine bu nu wootee diine ba ñu wuyu si leen. Mhm. ñuy lépp di lépp di lépp ak ak ak ak di def affaire kii xam nga nu ma ko mën a waxtee ku ne di xëcc ni man la. waaw tijaan moom moo fi gën muy ni moo fa gën. chrétien ba nefee ci li ci église ba naan ko ko chrétien fi gën. ah ah nga ñëw ci jamono nga ñëw fii si nga ñëw ci nga ñëw ci ñi nga xam ne nii ñoom la ñuy wax ah, ah, ñoom ñoo yow ko ah,

nee naa la nee naa la dafa am ñoo xam dañoo faible xam nga tey ki mat dëgg jullit bi mat dëgg jullit jullit bi mag jullit bi nga xam ni mat na dëgg dëgg dëgg dëgg ak ak njullitam suy suy def lu baax suy def lu baax wala muy moytu lu bon du mhm. set ma sàmba di seet ma dem parce que xam na ni jëf yi muy jëf suñ boobu subhaanahu mooy nangu ay jëfam waaye ngëmande ta bu la ñëpp gëmee te yàlla gëmu safewul waaye bu ñëpp xalabee te yàlla te yàlla gëm safe na ah <laughs> exemple bi kay exemple baa ngi nii tey ñi nga xam ne ni ñoo taxaw ni ñoom ñoo moom yonent bi salaay salaam ni ñoom ñoo ko moom ni ñoom ñoo ko moom keneen ku deful li ngi def da ngay bokkaale xamoo yonent bi ñoom démb ñoom démb ñoom ñooñu démb démb ñoom démb ñoom ñoo ñoo doon fitnaal yonent bi su ma ñoom ñu seen i seen i seeni laay maam. dëgg la. waaye tey ñoo ngi nii taxaw nii ah, ah, ah, tey ñoo ngi nii taxaw nii yonent bi sallallahu alayhi ñoom ñoo ko moom ci seen i wax ak seen i jëfin ak seen i doxalin. parce que ñemewuñ ko wax waaye ni ñuy doxee ak ni ñuy jëfee ñoom dañoo yaakaar ñoom moom yonent bi te moomuñu ko sallallahu alayhi wasallam. déedéet waaye yonent xam nga ni sëñ bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ma gis nga euh, keroog. ca jamono yooyu bu fekkoon ni bi ko ñooñ di fitnaale di ko bundu xataal yonent bi sallallahu alayhi daa def ni kilifa tey yi def Haji Maxtaar <laughs> ndeysaan Euh, Makhtar, Masha'Allah. Taïdé, mom, vraiment, on, on est tombé sur un grand philosophe. La ilaha illallah. Un grand philosophe, un grand soufi, un grand savant de l'islam. Makhtar Mbaye, tay mom, tay mom, yaramida da mom. Non, non, deug le thème bi thème la. Sunu mbokk Mam Aladji Diouf Londres mo ngi jema dougou. Inshallah. Euh sou, su rek dina bax. Euh waye Makhtar waxam ji yep yep yep yep Euh dafay delluwaat ci borom bi tabaraka wa taala ah dafay delluwaat ci borom bi tabaraka wa taala waaw waay waay waay waay waay waay wax nga dëgg waay maxtaar fala fala yantaqisu ma ma aradta an yazdad wala yazdadu ma aradta an yantaqis ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la waxoon ci taif bii ma doon wax loolu la waxoon ne ko ne ko ne ko bu yoboo man daal du bu dee gërëm nga ma na ma àdduna bi yëpp mere <laughs> ah àdduna loolu moo ci am solo ah macha allah donc euh, loolu mu junju euh, donc maam Alaaji Diouf bu Londres moo ngi doon jéem a Mar fay moom it moo ngi doon jéem dugg ci Sénégal keneen ku bëgg a intervenir mën nga dugg incha allah bala ñu àgg ci quarante cinq minutes yi ku bëgg a dugg mën nga dugg nga intervenir wax sa xalaat bu dee question la bu dee observation la bu dee critique la on est à l'écoute, Inch'Allah, pour partager avec vous ces moments sur le thème qui est la retenue. La ah, retenue, moi, bañ a ëppal ah a ëppal ci wax bañ a ëppal ci jëf bañ a ëppal ci jëlee ko ci làmmiñu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njàngaleem ak gaa yu baax yi seen jàngale seen muñ seen dal seen teey seen seen seen yiw hein seen seen mbaax seen yaatal seen yaatu hein nga xamante ni léeg-léeg sax da nga daan ñëw moom daal moom daal euh, dal baax na. ak ak baña eppal ah, waxna len ko fi bis nit yàlla yi dañ daan def yu mel nonu muñ yo xamanteni ni kenn mënu ko deg waaw ah, baña eppal def ndànk dal tey waaw amna example exemple yu graw graw graw graw graw waaw waaw sen mam alaaj mohammed digen nañu lu mel nonu bes nee amna talibem bu buñ don denc mom ku bax la won danul danul bàyyi talibem dalay top ba jox la yalla <laughs> ci sa dund ak sa faatu nak lay bëgg wax waaw bi ñuy moo dugal taalibe bi ci biir bàmmeel te guddi la woon nee na nag moom moo doon sax sotti suuf mu seetlu ne am na lu ko fit waaw moom alaaj Mamadou waaye fi mu toog nee na ñuy joxe ñaan joxe ñaan waaye moo ngi ñàkk waaye gis nga bi mu àggi ca kër ga ca lañ ko laaj ne ko waw lal mu daal di wax soog wax ne daf mel ni daal lu mel ni jiit wala yu mel noonu moo fit waaw xam nga kooku su nekkoon série yu jamono yii ma xam. série yu jamono fit ko. billahi dinañu yuuxu yuuxu yoo xamante ni biir biir sëg yi. tiital ñëpp su defee nit dañuy mujj mbëkkante foofu gaañu ëmët am fa lu yàqu fa mais def loolu ak métit yi ca nekk yëpp dem ba ci kër gi wut ñu ko ay affaire topp topp ci la soog a nettali ko dal. loolu benn exemple la rek mais mag ñi dañoo amoon retenue dañoo amoon dal dañoo amoon teey ba ëppalu te waaye loolu li ko waral mooy li maxtaat ñoo junj mooy nit ki soo bëggee sa digganteeg say morom baax sa digganteeg sa sa sa sa sa digganteeg sa borom baax ku jubóowu la yàlla mënoo jubóog nit ñi mënoo jubóog sa bopp man maa la ko wax <laughs> maa la ko wax ku jubóowu sa bopp mënoo jubóog nit nit soo bëggee am Euh, jàmm ci sa xol am jàmm ci sa jëmm am jàmm ci sa yàlla moo tax nit bu la diisee yenn soxla yi wax la wax la làmb ko digganteem ak boromam waaw kon Maxtaar àggaleel bu dee yaa nga tolloon amoon na solo lool. Euh, Alaaji Diouf dugg macha allah kon xam naa ne rek waaw moom loolu olof yi wax waxtaan wi waaw daf ñoo intéressé bu baax mais waaw yoon jeexul te dina yeneen yeneen jotaay incha allah

imam bi imam fi mu jullee aljuma aljuma ba baat génn hmm. imam dafa moytu wax jooju ba fut mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni gars yi war nañoo bàyyi di wax naan jiw daal ak baax te du julli parce que boobaa dangay gis nit di def ay yoo xam ne nii dafay rafet ci gis nii léegi day tax ba des fois ñenn dañuy wax ay waxu gaaw man ñii ñii dañoo ñii dañoo baax waaye su nekkoon su nekkoon jullit kenn ko gën kon nit ki li gënee ay moom nitam du jëf yi muy jëf mais mooy li animé li mooy tey jii man sëñ bi yow bi may jëflanteeg yow ma ma sama xel ma xalaat yonent bi salaay salaam nan la jàngalee jëflante diggante jullit ak jullit. jëf <laughs> jëf boobu moom jeexital sëñ moom jeexital te am fay calane ndax bu fekkoon jëf wala comportement kese mooy tax nit di baax te te te te jikko ju rafet ñu tagge woon ko yonent bi salaay salaam kon ñee ñële kon du leen rawee dara.

waaw nañoo fexe ba l'islam ak ay principe am ay ñàngaleem bokk ci institution wala constitution réew yi rawatina réewu jullit yi ñoo voté projet de loi war na noo laaj ci bi ñuy loo ci wax sunu borom sa borom bu hmm. la yónni woon lan la ci jàngale damaa bëgg sëñ bi damaa bëgg ñu interpellé damaa bëgg ñu interpréter les les les les autorités. waaw. loi yi ñuy voté ci bi. Mhm. lu lu lu kii laay wax wax wax wax naa la ni wax lu ma lu nga ma lu ma ñëw nga waxtaanee tey. wallahi sëñ bi ki bon sax ki bon ki jaay boppam ki jaay boppam bugul bugul ku ko wax tout ñi jaay seen bopp dañu leen tuddee wallahi doo ko wax nga ki jaay boppam wallahi soo ko fekkee fi mu taxaw di jaay boppam nga wax ko tout bi ñu leen di askanale du la su la mënee xas dina la xas bu la mënee tooxal dina la tooxal nit ñi bëgg nañoo baax nit ñi bëgg nañoo baax de waaye méthode bi ñu leen war a jàppale pour lu baax dafa des. société bi société. daw na yaram. sëñ Haj Maxtaar tey de moom inspiration bi daa dikk ak doole macha allah Haj Maxtaar nee ah yàlla nañu yàlla boole dimbali ñun ñëpp yàlla nañu yàlla boole ubbi yàlla nañu yàlla boole defal mbootu ihdina siraatal mustaqim kon sunu mbokk maam alaaji Diouf ñu jël ko xaaj ma maar fay mu ngi doon jéem a dugg xaaj demba ñoom ñëpp ñoo woon ci yoon yi di jéem dugg ah, incha allah duñu duggee barkeelu ndax mel ni ah, nit ñi moom la moom lañu ubbi moom lañu ñu moom la ñu jéem a euh, étudier moom la ñu jéem a xool ngir euh, ñu bokk ñun ñëpp jariñoo ko fii ci àdduna jariñoo ko ci àllaaxira mu nekk sunu mucc ñun ñëpp di sunu defaru ndax képp ku yàlla dimbali ba nga am dal am teey bañu ëppal lu mënti xew tamit nga def ndànk rek yàlla mën na la dimbali euh, ba incha allahu regret du am njuumte du am euh, communication dina am jokkoo dina am dimbalante dina am mbaax dina gën a tasaaroo njub dina gën a tasaaroo yiw dina gën a tasaaroo ba kenn ku ci nekk incha allahu li muy sàkku ci digganteem ak bopp wala mu koy sàkku ci digganteem ak i jaamam ci mbaax ak yiw mu mën koo jot ndax euh, yooyu yëpp mbirum yàlla la doole yàlla la cërub yàlla la yàlla la subhaanahu kon yi yëpp ay ay mayu yàlla la nañu sant yàlla bu baax waaye nañ ko mérité ci góorgóorlu ci def ci mbaax lu mënti xew rek ñu def ndànk def ndànk daal da am solo def ndànk ëppal baaxul waaw ëppal moom euh, ci lu mënti doon day mujj indi regret waaw gaawantu baaxul gaaw a wax baaxul waaw parce que da ngay da nga koy rëccu léeg-léeg nga mer loo xamante ni yaa juum hmm? waaye tamit su loolu amee tamit ba ëppal am ci wax wala ci jëf ah wala ci réaction mais na nga am humilité même bu dee sa soxna la jéggulul même bu dee sa soxna la ne damaa juum ndax sunu jigéen ñi moom doo yéexe sax ñoo lay jéggul waaye doo juumee ne ko damaa juum wala soo ko waxul tamit nga fexe ba loolu dootoo ko defati ba faw même bu dee sa doom la njuumte day am ñëppay juum ñëppay juum léeg-léeg nga ëppal ci wax léeg ngay làmb dara sax léeg ngay seet dara sax gisoo ko mer indi coow lu rëy fekk yow li ngay seet moo sa baat léeg-léeg taalibe da leen di dal taalibe yi da leen di dal hmm? léeg nga gis ab taalibe boo xamante ni bi muy jàpp la jël kurusam def ci baatam yaa ngi dégg bi muy jàpp ci la jël kurusam def ci baatam jàpp ba pare daal di ñëw toog sol beneen yére teg ci kawam di laaj kurusam def ko xuloo bu rëy ci kër gi yëngal kër gi sama kurus gi nangam nangam lu tax nga teg ko waxoon naa la bu ko laalati nangam di wax di wax ba àgg foo war àgg ci ay wax sax nga toog ba ci àgg rek daal di làmb sa baat di wax nii di def nii rek di jo kii rek làmb kurus gi loolu dafay dal gaay te loolu ni lay dalee ci sa kurus noonu la lay dalee ci yeneen i mbir. ak yeneen mbir ak yeneen mbir waaw su ko defee doo juumee amal humilité amal modestie amul wàcc amal mokk daal di ne ah man kat dama juum parce que dañuy wax ne une faute euh, reconnue est à moitié pardonnée ah nga nga nang nga nangu ne euh, da ngaa juum ah ba su ëllëgee euh, loolu bañ laa dalaat dal tey sunu mag ñi soo gisee seen sëy yi baaxoon mooy ëppaluñu sunu meraan dañu am na ñuy doxale wala ñu dem waxtaan ak ku am xel. ah loolu tamit ci ci ci ci dal ci la bokk bañ a ëppal ci la bokk parce que soo meree tamit dem seeti koo xamante ni moom tasub sëy wax yu metti violence su nekkoon man dina xam ne maa ko gën a dof dina xam ne maa ko gën a nangam kooku soo waxee ak moom tamit loo am di nga ko ñàkk sooy wax da ngay dem nga dem ci borom xel mu rafet borom xel mu mu mu sell mu set koo xamante ni baax rek la xam baax rek la bëgg baax rek la bëgg dégg waaw kay nga wax ak moom da ko ah, kat am na te man xaw ko woon daf maa bett su ko defee mun la ah loolu loolu du dara man dund naa lu gën a metti loolu ak nangam ak nangam ak nangam wàcce la wàcce la simplifier ko même bu dee loolu moom àggul foofu ah, ah euh, même bu dee moom àggul foofu waaw maam mën nga jéem a duggaat maam alaaji mën nga jéem duggaat incha allahu taala euh, mën nga jéem duggaat waa Londres mën nga jéema duggaat comme ça euh, xam naa ñu jël la incha allah taala donc nga wax ak moom mu wax la. jox la sax exemple yu garaaw yoo xamante ni euh, wax la daal bay indi la ba nga dellu si ndeysaan nga dellu dem téye sa soxna dem téye sa doom téye say njaboot bu dee sa xarit la benn bakken nga dem téyewaat ko ba mu jaaxal ko lu tax sax nga dellu si waat loolu daala koy may wax ak ku baax tamit moo koy may moo koy maye waaye bu dee jigéen la tamit soo amee problème am na ñoo xam bu leen déglu bu leen déglu dan lay tasloo dan lay Eh, kii ah man de duma ko góor defoon ah man de duma ko sama jëkkër defoon te pourtant ñoo ngi koy def lu gën a garaaw loolu lu ko gën a metti te moo nga toog waaw ah, ku lay tas loo te moo ngi toog ci sëyam bu ko nangu ku lay wàcculoo sa jabar te moo ngi téye jabaram bu ko nangu yo yo yo yo dal dal dal dal bañ a ëppal waaw ah, nga wax ak jigéen ju baax mun la ah yow sama doom yow loolu nga wax ah man loolu dund naa cent fois loolu te maa ngi ni toog ci sëy bi ba yow ñaata sëy nga ñaata at nga sëy nga ne aman ah, de vraiment maa ngi ci quatre quatre ans de mariage wala cinq ans mun la waay man maa ngi ci trent deux ans de mariage li nga wax ni dund naa ko pendant quinze ans te teewul toog na maa ngi nii ba yàlla may ma ci ay doom may ma ci ay sët gis nga nit ku baax yi wax yi la lay wax façon wax yi la nga mucc yii lay wax wax la waxi dal ah. wax la xalaat yi dal c'est la même chose pour suñu yeneen affaire ya ah. dal dafa baax reconnu ba ñu ëppal dafa baax internet soo soo ci duggee defal attention bul am na site yoo xamante ni billaahi loolu taxula woon a jóg de taxula woon a jóg de waaye doo ci ne caraax dugg ëppal danga nga dem mujj bis bu nekk nga dem ci sooy su yàggoo mu yàq sa àdduna yal nañu yàlla boole dimbale kon maam bismillah alaaji moom du fëggee lu ñuy wax dañ koy bàyyi déglu ko <laughs> am jegen serigne ñu jaar jegen serigne ñu jaar ah, fa ñoko bàyyi jegen mam as bismillah yow la ñëpp di Allah waaw Allah tembi tembi mom amna solo taw waaw waaw day rafetlu bu baax day rafetlu bu baax ndax euh, ci walu euh, dal dal walu dal dal ak tey defe naa ni mooy Allahu akbar liñ rek yoon waaw looy mënti def daal calculer ci bu baax luyee sa xel li ñuy uti li ñuy uteeree ak malay daal mooy waaw te nag pour nga utiliser sa xel pour nga utiliser sa xel nga tey posé daal pour mën a am solution ci lu mën a am solution ci lu mu mënti doon waaw waaw ko defee dal gi daal wax dëgg yàlla dal gi daal wax dëgg yàlla comme ni ko waxee mooy lépp waaye dafa yóbbu mooy lépp waaye dafa yóbbu ci jamono ji ñu ndax da ngay jëflanteeg doomu aadama da ngay jëflanteeg lépp rafet ci sa xol nga amoo ci intention lu dul amoo ci intention lu dul lu baax lu baax waaye moom it mën na koo gisee moom it mën na koo gisee neneen loo xam ne rafetul rafetul dëgg la parce que vision parce que vision dafa am solo dégg-dégg aussi dafa am dégg-dégg aussi dafa am dafa am solo ngi wax ci benn waxtaan yaa ngi wax ci benn waxtaan nga ni suñu borom lu muy dégg yëpp mais dafa am lu muy dégg nit ki mën nga ko dégg nit ki mën nga ko dégg te doo ko dégg waaw ah, balaa nga balaa ah, nga balaa nga balaa nga mën a xanaa di nga tànk bi mais bu ko déglu rek yam mais bu ko déglu rek yem da ngay déglu ba pare dégg da ngay déglu ba pare dégg waaw aduna amul solo yenn yi aduna amul solo yenn yi daru ko waaw def lu baax daal def lu baax daal ak wax lu baax loo ci mënti jëlee ci njëriñ loo ci mënti jëlee ci njëriñ mënoo ko jëlee ci leneen waay dëgg la waay liñ do wax naan liñ do wax naan góor gu baax gi di wax naan góor gu baax gi di wax naan loo xam ne boo ko defee mu rafet boo ko deful moom day ñëw dëgg la waaw lépp lu wara man lii lépp lu wara man lii de su ma ko defoon dina rafet boo ko fa bàyyee raay ko rek xam naroo lu baax naroo lu baax te suñu suñu suñu sëñ bu baax bi di wax naan suñu biiru bopp yi suñu biiru bopp yi suñu borom mi ko sàkk suñu borom mi ko sàkk dina ci def loo xam ne moom la ñuy dundee waaye suñu biir bàmmeel waaye suñu biir bàmmeel luñ fa liggéeyu bàyyi buñ fa liggéeyu bàyyi duñ ko fa fekk duñ ko fa fekk déedéet waaw bu ñu suñu biir adduna yi suñu biir adduna yi gënal suñu biir bàmmeel loolu nag daa ëmb lu bëri loolu nag daa ëmb lu bëri for na mooy ngay jëflanteeg sa morom jëflanteeg sa morom doomu aadama yi doomu aadama li ngay jëflanteeg sa morom ak li ngay jëflanteeg sa morom mooy ñett yi nga lim daal sànq ci sa biir moy sa digënté ak sa borom mooy sa ak sa borom sa digënté kan ak sa morom sa digënté ak sa morom ak yow sa digënté ak sa bop yow sa digënté ak sa bop yow nit fo ya. ya, nga rañal de yoy fo nga rañal de yoy rañal la bu baax benn bu ci nek benn bu ci nek nga xam nan nga ko wara orienté nak nga wara jëflanté ba mu rafet amna ben aya bo amna ben aya bo xamni boo xam ne bëgg naa wax la ko moy ñu suñu borom ñu suñu borom di ak dekkalaate ci yenn mala yi mooy arda baax da mooy arda baax da mawtiha mhm. aya boobu aya bu fekkente ni mën nga ci am fekkente ni mën nga ci am benn leeral ci looy looy jàngal naa ne am na solo defe am na solo dëgg la nga leeral loolu tuuti nga leeral loolu arda baax da mawtiha waaw ban gis-gis nga am ban gis-gis nga ci am. <laughs> waaw incha allah. allah rabi incha allah rabi. d' accord ñu kontaan bu baax nag ñu kontaan bu baax nag te li waxtaan bi yëpp rek sax lu ñuy ñaan mooy yàlla yàlla yàlla dégg ak topp ba ñu mën ko dégg topp ba ñu mën ko jëfe. amin amin amin Diouf ñu ko bàyyi. amin amin ndax li ñuy ah, dégg yëpp daanaka li ñuy dégg yëpp daanaka ñu lay jëriñ rek. yàlla seetlu nañu waxtaan bi yàlla ne nañu waxtaan bi dama koy déglu ci ci taw bopp bu baax chaque jour ya. boo dégloo jour boo dégloo aussi. da ngay dem si sa ruku man la kan da ngay dem si sa ruku man la kan. jàkkaarloo seetu toog jàkkaarloo seetu toog daal di man la kan. lan laa jëflanteeg doomu aadama lan laa jëflanteeg doomu aadama yi lan laa jëflanteeg sama digganteeg sama borom. Oh. waaw ah, aduna bi yàggul te jarul yenn yi yàggul te jarul yenn yi. dëgg yàlla. dëgg yàlla. mais li ngeen di def nag. mais li ngeen di def nag wax dëgg yàlla baax na jeunesse bi am na li li li Matar wax sànq li Matar wax sànq rek doon na émission la wax dañ a def direct télé yi ñëpp di ko seetaan télé ñëpp di ko seetaan ndax mooy defar dëkk bi daal ndax mooy defar dëkk bi daal jikko bu baaxee rek dëkk bi baax mais jikko loo mënti indi ak koom-koom lu mu mënti koom-koom lu mu mënti boo xool dëkku nasaraan yi ngay gis dëkku nasaraan yi ngay gis du dara lu dul jikko yi lañ defar jikko yi lañ defar rek mm-hmm, mm-hmm. jikko yi lañ defar nga xool lu normal nga xool lu normal loo war a organiser organisé. Mhm. mais loolu nag foog mu. loolu nag foog mu jiitu ci. ci nit ki en personne. ci ñun nit ki en personne nga xool ngay jëflante ni ngay doxee ci yoon. bañ a jëf jëfinu. bañ a jëf jëfinu mala. rafetlu nañ kàddu yi bu baax a baax kàddu yi bu baax a baax baax moom sax émission bu am. ñu dugg ñu dugg. participer wax suñu xalaat participer wax suñu xalaat. mu néew mu bëri. mu néew xam naa ni gars yi moom. xam naa ne gars yi moom ci lañ ci lañ kenn kon ko ci dugg tamit da ngay ci dugg tamit da ngay. rek tu yaatal rek tuuti bàyyi sa morom jàpp naa ne man jàpp yi ay surga rek lañ. maa ngi ñoom ñëpp ay surga lañu. déedéet yaay maam alaaji. déedéet waay déedéet waay. <laughs> jàpp naa ne yi moom di leen jàpp naa ne gars man may wax jëri sax man may ah, wax. a ah. jàmbaar sama wax sama wax ji moom ah, sama xalaat rek waaw dañuy jariñ ci sa bos de man mii sax dama ci ah. jariñu de. ah <laughs> macha allah macha allah kontaan nañu bu baax di a yàggal taxawaay. amiin amiin amiin Diouf. incha allah yàlla may la kattan wér gi yaram wér gi yaram amiin amiin amiin amiin te bokk ko ñëpp incha allahu taala. kontaan nañu bu baax. kontaan nañ bu baax. yàlla na yàlla kontaan Diouf a ñoo sant nañ bu baax <laughs> jërëjëf jërëjëf ah, xam naa du ma la téye incha allah du du kii léegi dinaa barkeelu ci loolu comme incha allah dégg nañ ci laaj dinañ ci wax tuuti incha allah suñu yàlla dimbale nag beneen yoon mm. dinañ ko um, dinañ ko mën nañ ko def direct spécial waaw uh-huh. ndax ndax loolu kooku dafa graaw loolu nga wax noonu dafa graaw incha allah dinaa ko leer su neexee yàlla yow yow moom dañuy bëgg di la déglu ndax mbokk mbokk yaa ngi bind nii sax ndeysaan Mm. di di di mm. kontaan di di di bëgg ci say say idée di nga jël mm. mais di nga joxe te fii tamit li Senghor waxoon c'est le rendez-vous du donner et du recevoir ñun nag li ñu wuuteeg euh, poème yooyu ak philosophie ñun suñu donner ak recevoir lépp day dugg day dox ci diggante alquran ak sunna ak wax yi ñut yàlla yi ñun sunu sunu sunu sunu nangu foofu la ak ak xel mu rafet moo xamante ni lépp mu ngi branché wu ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, moo tax mhm. nag alhamdulilah. Euh, duñ la déggee dañ ci yokk seede na lool. macha allah macha allah moom ñuy dégg la. <laughs> waaw jërëjëf jërëjëf. waaw jërëjëf jërëjëf. incha allah incha allah ñu soxna si baax ak njaboot gi foofu yow mbokk yëpp incha allah taala. incha allah da ko dégg incha allah da ko dégg. jërëjëf waaw kon euh, mbokk yi euh, maam El Hadj Diouf a bokk ca Londres tabaarkallaahu nee na sama baay. jigéen radiyallaahu anhu muy lu rëy lu foor yal na yàlla li ko jàmm sunu lépp la sunu sunu lépp la donc duñ ci guddal yaakaar naa direct yu njëkk yi am na lu ñu ci waxoon waaye sant yàlla donc euh, euh, loolu muy junj noonu sama borom euh, aaya bu gudd la waaye li ko ci intéressé rek laay wax beneen yoon dinañ ko mën nañ ko def sax direct spécial leeral ko ci wax jooju sama borom wax ne day yuxyi larda baada mawtiha waaw day dundal suuf ginnaaw ba mu dee <laughs> day dundal suuf ginnaaw ba mu dee kooku um, dafay am ñaar walla ñetti dégg-dégg moo tax toujours damay wax ne kenn ku ci nekk uh, ak uh, niveau waaye uh, dina baax incha allah waaw. donc jërëjëf le donné le rendez-vous du donner et du recevoir mohammedien ñun bokku ñok ñeneen ni waaw loolu moom il faut que mu leer ok kay mohammed Mouhamed mooy sunu kilifa mooy sunu référence sallallahu alayhi wa sallam donc maam alaaji euh, déggin bu njëkk bi mooy son borom ni li mu wax ne mooy fekk suuf su dee mu dundalaat ko loolu déggin bu njëkk bi mooy yàlla day fekk ab désert wala mu fekk ab euh, terre ay des li ñuy wax ci français des terres arides des terres yoo xamante ni dañoo dañoo woowoo wow ba comme ni tuñ di tojee du woowee wala tànk deru yaram du du du weexee ba didim ba ba xar suuf day def loolu ndax ndax ñàkk ndox ñàkk ndox nag ñaari ñaari ndox la dafa am ndox moo xamante ni day jóge ci asamaan si am na ndox moo xamante ni ci suuf lay ballee sama borom nag su ko ci àll xiiree mu ballal ndox ci suuf tooyal su ko neexee tamit mu wàccee asamaan ndox muy taw

ak lakk yi ak yooyu yëpp yàlla dina ci arroser suuf day fekk suuf su dee ñu wut ay barrage dégg nga wut ay euh, ay euh, ay ay tuyaux yu mag dégg nga euh, ay kana ay canaux ay canal ah jaarale ci ndox mi mu ñëw di arroser suuf yu dee yooyu yu tooy yu woowu kong yooyu am na tamit benn système bu ñox wax goutte à goutte comme arrosage la dañ koy def tamit pour pour dundal suuf suuf soosu noonu woon na léegi ndox mi moo ko dundalaat ah ndeysaan ba suuf si ci boppam mujj di dundalaat moom allahu akbar déggal suuf si dafa dee woon yàlla yabal ndox mu ball wala mu yabal ndox mu jóge ci asamaan si wala mu yab mu mu nit ñi jël ndoxum géej wala ndoxum dex wala ndoxum lakk ah wala seyaan ah, suuf soosu mujj dund bay dundal ay garab garab yooyu du mujj di dundal doomu aadama yi allahu akbar kooku mooy dégg-dégg bu njëkk bi maam soo gënee xóotal nag dangay mujj xam ne doomu aadama euh, moom ndox la mais suuf la doomu aadama ndox la mais suuf la parce que doomu aadama yàlla moo ko euh, mooñee ñaari matières yi mu ci boole ruusoo ga ñëw mooy lan suuf ak ndox suuf ak ndox ah <laughs> suuf ak ndox waaw léegi kon suuf ci boppam dafa am lu mu bokk ak doomu aadama kon ku tudd suuf tudd nga nit ku tudd ndox nit tudd nga suuf moo tax nit du faatoo ñu koy delloo ci suuf si parce que ci suuf la jóge mooy origine am loolu moo tax nga mën cee déggee tamit ne ndekete yoo Euh, déggin bi ngay am ci ne yàlla day wàcce ndox mu tooyal suuf suuf dundaat walla mu ballal ndox suuf dundalaat wala mu euh, dawal ndox ndox dundalaat suuf soosu yàlla subhaanahu wa tamit noonu lay jële doomu aadama yi yabal diine dégg nga bu dee diine ju bees tàq la ju jóge ci yàlla kooku asamaan la jóge bu dee diine juñ fi fekkoon la yonent yi daan na ñëw fekk seen moroomu yonent nekk ci diine ñu continuer ko kooku ndox mu ñu ballal la ci suuf la nekk naturellement bu dee euh, euh, euh, bu dee bu dee bu dee bu dee yonent yi bu dee bu yi alayhim salaam ñoom it dañoo euh, dañoo dañoo dañoo yeesal diine xam nga kii mooy ndox mu mooy bu njëkk bi kii dafa fekkoon ab diine continuer ko kii nag ba mu ñëwee diine ji mu fi fekk daf ko dindi daf ko li ñuy wax naasix ak man suux daf ko daf ko abrogé indi diine ju bees comme ni Seydina Muhammad ñëwee fekk diine yi fi nekkoon yépp mooy li yàlla wax ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون دونك دا فاي ابروجي يينن دين يي في نيكون موي ندوخ مومو سافون خروم تيجي خروم سا ديندي نانكو ندوخ مي ليغي سافاتول خروم ندوخ مو لويت لا مو خامتين دنجي اروزي اي تول اوكي مونغوك تا كات ماغ لاي خامل نيلا ندوخ مي تي اسمان سي اك ندوخ مي تي سوف اك ندوخ مي تي گيج جي نيوم نيب بن لاج lolu ben bis dinañ ci ñëwaat te regal naa sax waxtaane woon naa ko ci bi may tontu 30 questions yi relative ci aljanna d' aywa léegi ñu dem mu des nag euh, euh, suuf tamit yàlla du ne damay dundalaat suuf loolu cest à diir que ci biir diine ji bu dee diine yi jiitu woon la ci Seydina Isa ak Seydina Moussa ak Seydina Ibrahim Seydina Isa mooy exemple bu njëkk bi ma njëkk a joxe ci ñetti ndox yi léegi dafa am beneen beneen ci biir lislaam tamit yàlla dina dina dina dundalaat ay suuf dina dundalaat ay suuf suuf yooyu mooy lan mooy xolu wëlu yàlla yi nga xamante ni yàlla daf leen di nan